ngeen xam ni suñu jàppale ak yéen kanam la jëm looloo tax président Mbaye Amar mu may dee léegi wax ma jaar-jaar yi ni ngeen jotee terrain beeg effort yi ngeen def ak fa ngeen ci fas yéene dem ma ne ko manit danaa la dee kon danaa ci dugal tuuti sama loxo jox leen deux cent millions mu nekk contribution ci tabax bi nga xam ni fas yéene ngeen ko def mu nekk loo xam ne dana nekk contribution président la république réew mi dañ ko fas yéene tabax moderniser ko tabax yoon yi tabax infrastructure yi waaye nag jikko yi buñ ko changé wul du réew mi du mën a dem donc il faut que ci wàllu transport ñu waxtaan ak suñu mbokk chauffeurs yi former leen moo tax maa ngi seen Senbus ak Abdourahmane Ndiaye ci initiative bu mu jël ñoo defaat auto école ci wet gi ñu jàngal nit ñi métier bi ni ñu war a téye ndax bakkanu doomu aadama du lu ñuy foye yor oto di daw di course ci tali loolu dafa war a denc réew mi euh, que li ñu bëgg nga xam ne Sénégal émergent la war a def ay autoroute ay tali yu bees il faut que aussi comportement yi ci volant yi ñu xoolaat ko loolu dañ koy lancer appel war nañu def loi bu bees bu ñu tuddee loi d'orientation boo xam ni bu ñu ne mode de transport yu bees am na am na autorail bu bees TER am na BRT ay bus yoo xam ne seen yoonu bopp la waaye ñooñu dañuy liggéey ak bus yi ngeen yor parce que yéen a mën a dugg ci roq yi ak fi gën a sore indi il faut que donc partenariat boobu ñu tabax ko ba nga xam ne lépp dana nekk harmonie ci biir réew mi kon lii ngeen tàmbali dañ ko war a renforcer yokk crédit yi yokk bus loolu nag day fekk effectivement nii ngeen ko tàmbalee te ñu wax ko fi ñu maintenir loolu muy lekk Faye la sant su ko defee crédit yi mën a continuer état bi mën a yokk loxoom ku amuloon mën a am ci ay bus pour transport bi jëm kanam